julli ci yenentam muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu leen nuyoo lislaam bi ngeen dégg léegi kon tey tami ñëw nañu ñu fas yéene jokk suñu si ñu doon jël si téere bi ñuy tuddee al adkaaru wal si suñu chaîne bi ñuy tuddee Alimni TV mbokk yi ba léegi ñu ngi si ñaan yi nga xamante ni jullit bi daf koy ñaan ci biir julleem ñu ngi nekkoon nag si ñaan yi nga xamante ne da koy ñaan ci witir darse bi passé gis nañ nit ki buy julli witir lan la war a ñaan kon mu ne tey lu ñuy jàng mooy bu sëlmalee ci witir moo tax mu ne ida sallama minal witir bu nit ki jullee witir ba selmal foofu mu toog balaa moo jóg lan lay ñaan kon yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñaan bu mu doon ñaan bu sëlmalee ci witir kon jullit bi war na ko mokkal moom tamit saa yu sëlmalee ci witir mu daal di ko ñaan moo tax mu ne kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallama ida sallama min al witri qaal mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallama de nekkoon na bu fekkee ne sëlmal ne ci witr daan na wax subhaanal malikil quddus daan na wax kaddu gi talaatan ñetti yoon yarfa'u sawtahu bi thaalisa si ñetteel bi mu daal di yëkkati kaddam day wax subhaanal malikil quddus subhaanal malikil quddus Sinyat ñetteel bi mu ne subhaanal malikil quddus kon ñetteel bi dafa doon yëkëti kaddom ci buy ñaan ñaan bi mu wax ko ñett yoon mu ne subhana moy sel ñelna al malik yalla bi nga xamantene mom moy bur moy ki mom lepp moy ki nga xamantene moy yilif lepp mom borom bi subhanahu wa taala kon lol moo tax képp ki nga xamantene fi jox nañ ko nguur fi ci kaw suuf sa nguur sa nguur bobu dañ la ka al te du yem foofu yowmal qiyaama yàlla dina la taxawloo mu laaj la loolu nga jiite woon nguur boobu nga amee woon nan nga ko jiitewee woon kon nguur dëggantaan borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki ko moom kon yàlla moom mooy almalik moom mooy buur bi nga xamante ne moom mooy xool ki ko neex si jaamam mu dénk ko lenn ci kilifteef ci kaw suuf bu ko defee mu jiite ay nit waaye dëgg-dëgg nguur ci loxo borom bi subhaanahu wa taala la nekk kon mu ne sell ñeel na kooku borom bi subhaanahu wa taala alquddus mooy ki nga xamante ne ku ñu setal ci ku set la ci lépp li nga xamante ne moom mooy wàññeeku moom borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ay borom melokaan yu mot ci bor yëpp moom borom bi subhaanahu wa taala lépp lu ñuy tuddee melokaan wàññeeku moom borom bi subhaanahu wa taala ku set la ci loolu moom mooy borom bi nga xamante ne mooy ki am lépp moom mooy ki mën lépp moom borom bi subhaanahu wa taala kon bu fekkee ne euh, nit ki euh, dégg na bi day xam ne kon moom yitteem yëpp ak soxlaam yëpp moom borom bi subhaanahu wa taala la ko war a ñaan moom la war a jublu ci moom ndaxte moom mooy ki nga xamante ne mooy ki mot ci boolem wet yi waaye moom mooy ki nga xamante ne lépp lu ñuy tuddee lu wàññeeku euh, jëmul ci moom borom bi subhaanahu wa taala kon day jël kooku mu feese ko si xolam moom rek moom mooy doon ci xolam moom rek lay yaakaar moom rek lay ñaan kon loolu lay bàyyi ci dënnam moom borom moom mi nga xamante ne sëlmal na ci witir te mu waaj a dem tëddi xam nañ ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax mooy nañu def suñu mujjanteel julli ci guddi bi mooy witir kon ginnaaw bu nit ki defee witir dafa war a dem tëdd léegi nag buy tëddi mu daal di yóbbaale ñaan bu rëy bi ak weetal borom bi subhanahu wa taala ci ay turam ak ay melokaanam loolu dafay jural nit ki mu daal di euh, tëdd fekk mu ngi ànd ak li ñuy tuddee tawxiid wéetal borom bi subhaanahu wa taala fekk du ragal kenn ku dul yàlla du yaakaar kenn ku dul borom bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi lii moom moo nekk suñu dar si tey ba nit ki selmalee ci witr lii lay ñaan hada wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh علمني تي في قناه علمني TV. Canal. Alimni.